diggante Thiès ak Diourbel région de Thiès ndaysaan ak région de Diourbel ñu ngi noonu ñoom ñaar ci 66 kilos bi ndaysaan Diourbel moo ngemboo ngemb Lagos bi wan leen ginnaaw Thiès ngeen jàkkaar lool final drapeau chef de l'État fii ci Kaolack ñaari xale yaa ngi leewaatoo ndaysaan Thiès ak Diourbel ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan Thiès ak Diourbel mbokk yi ñu fàttali leen Thiès drapeau chef de l'État 2019 ñoom ñoo ko jëloon ñoom région de Thiès 2020 amul ndax Covid bi moo taxoon 2021 tey fii ci Kaolack ñu xool ba xam drapeau chef de l'État day dellu Thiès wala day ñibbi Diourbel ndaysaan ñu xool baxam xam ñu ngi bëre ñoom ñaari xale yi du yomb ndax final la ndaysaan Thiès ak jurbel Diourbel ndengeñ na Diourbel Thiès Diourbel Thiès ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan mbokk yi yéen ñi safoo wasaare làmb ndeysaan ñu ngi noonu ña ngay bëre ñoom ñaar Thiès jurbel arbitre bi àtte na avertissement pour Thiès ay ca arbitre bi sifle waat na ndeysaan Thiès ak Diourbel drapeau chef de l'État 2021 fii ci Kaolack ndeysaan président CNG de lutte doon doomu Kaolack jàppante nañ wër na ko ndomba Thiès wër na ndomba Diourbel Thiès wër na ndomba Diourbel daan na Ndeysaan daan na ko daan ak Diourbel Thiès ak Diourbel 27 kilos yi ba dox ci diggante Thiès ak Diourbel Thiès ceinture rouge Diourbel bleu Ndeysaan ñu ngi noonu Thiès ak Diourbel ndaysaan daan na Jurbel daan na ndaysaan ndambe la Jurbel daan na Jurbel de l'état bi di lamba garaaw ndaysaan arbitre fi nga toog baaxul boo déplacé woon dinañu gënal wallaay arbitre bi moo dégg daaj ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi ndaysaan Thiès ndaysaan ak jurbel ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan région de Thiès ak Diourbel ndeysaan arbitre bi atawaan na avertissement benn avertissement Diourbel benn avertissement Thiès ndax ndeysaan ku ci nekk daan na 66 kilos ndeysaan daw nañ jëli wala déet 76 kilo bi daan na 66 kilo bi daanu no ndaysaan daw na jëli ko ndaysaan daw na jëli ko dinañ bëre ñoom ñaar du yomb plaqué ko mu bañ ndaysaan ama seen a ngi noonu satu Samba Xoyaan bi dugg si na ci stade bi yuuxu yooyu ngeen di dégg Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Farima jigéen moo dugg si moom Eumeu Sène ndaysaan lancé roi des arènes ndaysaan moom Eumeu Sène moo daan Balla Gaye deux deux fois moom Eumeu Sène moo bëreeg Lac de Guiers daan ko moom Eumeu Sène moo bëreeg Souleye Diop daan ko ndeysaan xale yaa ngi noonu di jàppante ñoom moom Eumeu Sène moo bëreeg Zallo daan ko ndeysaan mooy bàkk noonu ndeysaan moom Eumeu Sène moo bëreeg la B52 de Mbour daan ko ndeysaan ndaanaanu Eumeu kenn du ko fàttali mbokk yi la ci làmb ma ngay bàkk moom Eumeu Sène ndeysaan ndeysaan stade baa ngay riir surtout Samba Xayaan baa nga noonu ndeysaan ambiance la mën moom leader bu taay singa bi ma nga noonu ñu ngi ci combat bi ba tey diggante Thiès ak Dakar waaye Thiès ak Diourbel man Dakar lu ma def ndeysaan Thiès ndeysaan ma nga noonu arbitre bi àtte na taxaw leen fii mbaadu dañoo nar a nul ndeysaan daan na bi dox ci diggante Thiès ndeysaan ak Diourbel ba tey Thiès moo ngemboo ngemb lu weex li seen tur rouge moo ngemboo ngemb Lagos bi seen tur bleu ñoom ñaar ñu ngi ci compétition bi ba tey ndeysaan ñu ngi ci bi ba ñoom ñaar mbokk yi actuellement ndeysaan Diourbel am na ñaari ndam ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan gis ngeen ñu ngi noonu ndeysaan Diourbel ak ndaysaan Radiakhé moo nekk région de Diourbel Thiatou Aïda moo nekk région de Thiès Thiatou Aïda moo ngem moo lu weex li wan leen ginnaaw def ceinture rouge ndaysaan Diourbel mooy Radiakhé moo ngem moo ngem bi def ceinture bleue Thiatou Aïda jël na tànk ba ndaysaan Radiakhé rëcc na Radiakhé daa doole ni mu toll doole ji ëpp na loolu rajaxe ngay bëre rajaxe ngay bëre faqat na ko mbaadu deet daan daanuwul wala deet saan kay ndaysaan kaay joxe saan verdict saan ndaysaan saan ndaysaan gis ngeen mbokk yi combat bi doxoon ci diggante Diourbel ak Thiès sànq dañu dugaloon recours ci ndam li nga xamante ni Thiès amoon na ko ñu ne dañuy bëriwaat mu ngi noonu Diourbel jël nañ tànk ba ngemb walla déet dina daanoom déet daanu na daanu na daanu na daan na ko daan arbitre bi sifflé na bii mooy final normal ku ci daan yaa jël drapeau chef de l'État fii ci Kaolack dox ci diggante Thiès ak réseau de Diourbel Thiès moo ngemboo ngemb lu rouge li moo ngemboo ngemb lu weex li ceinture moo ngemboo ngemb lu ñuul li dox ci diggante booy fay ak Libidor ndeysaan ñu ngi noonu Boy Faye moo représenté Diourbel Libidor représenté Thiès ñoom ñaar ñu ngi noonu ci finale drapeau chef de l'État bi ku ci nekk sa équipe am na ñaari ndam muy 2-2 actuellement ñoom ñaar ñoo ci des Boy Faye mooy libéré Diourbel wala Libidor mooy libéré Thiès dinañ ko xam léegi waaye en tout ñoom ñaar ku ci daan sa li nga xamante ne mooy raison bokk ko wala yow yaa ko jox ndam li tax mu am ko. ndax actuellement 2 ci compétition bi daw na jëli ko saan booy fay ndaysaan ak libidoor ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan booy fay libidoor ndaysaan booy fay libidoor ñu ngi noonu fàqat na bañ na ndaysaan du yomb ndax final la ñuy bëre ñoom ñaari xale yi ndaysaan kii teewal région de Thiès kii teewal région de Diourbel ñoom ñaari xale yi fàqat na ko li bi door fàqat na booy fay sol na ko mu ngi koy fàqataat mbokk ma leen xamal trois appuis jël la ci drapeau chef de l'État amul jàpp ngemb Libidor Boy Faye jël na tànk bi daan na ko Boy Faye na Libidor Boy Faye daan na ko drapeau chef de l'État Diourbel jël na ko Diourbel jël na drapeau chef de l'État ndeysaan su ko ne